li ci topp nag jibi euh, sunu xarit bi waaja ñëw euh, nit la koo xamante ni euh, moo doon ñaw c'est pas pour rien àdduna yëpp naan héritage couture kooku nag mooy moo duggee héritage ma bëggoon ñu accueillir ko ngeen tàcc ko bu baax bu ñëw fekk suñu ci plateau bi moo Gueye héritage noonu la ko ñëpp yi woowee Modou Gueye héritage couture jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan nañu Modou saa yoo demee ci jotaay ni nga koy def ndax euh, yàgg ci ba pare baax nekk euh, nit ku bëri valeur maa ngi wax léegi nii yaa doon ñaw c'est pas pour rien euh, marque bi tudd héritage couture mais d'abord dañ lay bàyyi nga nuyoog suñu xarit yi nga xame nii ñooy seetaan tey. mode Korité 2021. Euh, Pape Cheikh maa ngi leen di nuyu di leen ziar. Euh, di leen baalu àq ci koor bi ñu nekk di leen baal àq. Euh, d'abord ma remercier comme li nga wax ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan. di leen xamal ne nag am nañ loo xamante ni tey moom la nit ñi daan mujjee waaye ñun dañ ko bëgg a tàmbalee muy remercier leen gërëm leen sant leen. ginnaaw bi ma gërëmee sama famille bi ma bokk muy famille sëñ Xaar Gaye bi nga xamante ni suñu maam moomu ñaanal muy sëñ Xaar Gaye sëñ Tuubaa seexal ko ci ñaw mu ñaanal ñu ci ñaw ñu doon ko papa bu ma am day ñaw euh, may remercier ñi nga xamante ni mooy équipe bi ma yàlla booleel euh, nga xam ne ginnaaw bu ñu client yi wóoloo ba di ñu jox seen alal rek ñoom tamit ñoom contribuer nañ ci ba tey ñu am euh, ñuy mën a am satisfaction kon euh, équipe bu héritage couture yëpp ci caat ba ci taaw ñu leen di remercier tamit euh, buñ ci weesoo tamit ñeneen ñi ñu yàlla booleel muy ñi nga xam ne nii maanaam suñu ay cliente ñu leen di remercier euh, ci wóolute gi ñu def maanaam bëgg li ñuy def kon loolu ñoom tamit amuñu seen fay moo tax ma ne di remercier nag képp ku fi toog ak képp ku ñuy seetaan Euh, foo nekk ci àdduna rek di leen xamal ne héritage couture mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu di leen jox boppam waaw. loo bëggoon ñu dellu si waat tuuti ci histoire héritage couture balaa ñuy ñëw ci accessibilité bi juddu euh, maanaam léegi euh, nit ñi mën nañu sax télécharger application wu héritage couture nit ñi léegi fu ñu nekk ci àddina mën nañu dugg ci site internet héritage couture commandé ñu livrer leen ba Chine nit ñi léegi mën nañu dem. Euh, ba héritage couture bi nekk fii euh, euh, bu bees bi e nekk fii boori rond point EMG on va on va revenir sur ça mais histoire héritage couture parce que tour turu marque bi histoire la en fait loolu bëgg naa ñu ñëw ci tey waaw laaj nga ma question boo xam ne nii maanaam lu ma mës a am ci àdduna rek bi moom ma ci dàqal ndax li ko xam tour bi Euh, nit ñi tourbé leen neex. waaye li def tur boo duggee héritage alors que marque bi ci boppam héritage couture. dafa am histoire. waaw ndax euh, comme ni ma la wax sànq man papa bu ma am day ñaw man ci xaalisu ñaw lañ ma ngéntee euh, dama am sama frère papa boo xam ne moom lañ doon wax jongoma maara moom lañ doon wax naan moo ñëw ba ñëwal jinne à l'époque mhm. moo nekkoon fii ci Sandaga moom ak Paye Ahmed Sirara moo leen daan jox ci suñuy défilé mhm. ci jamono boobu mhm. sama frère bu papa la moom la ñuy wax jongoma maara moom ñu ngi woon Côte d'Ivoire tamit sama papa mu ngi woon Côte d'Ivoire di ñëw ah. après bi mu jógee Côte d'Ivoire la ñëw fii fekk ne que ñoom dañ leen waxoon ñoom ak ay ñoom Pape Malick Niang mhm. paa yooyu nga xam ne ñooy paawu ndaanaan yu njëkk yi ci ñaw waaw kay sama ñoom ci la nekkoon ñu koy wax morgay xaar uh-huh. am naa frère yu ñaw parce que du man rek maa ci mën naa wax ne maa ciy caat benn rak laa muy sëñ saali moom laa tuddee sama doom bi uh-huh. sama doom baay la uh-huh. euh, tey bi ma tollee fenn fii euh, comme liñ naan li ci li ci li ci sët ci maam lay jóge comme niñ koy waxee waa sëtu koy jël Euh, te bëggoon naa jàng école trop mënoon naa ko nag tuuti. Mhm. waaye nag te suñ borom ci lii la may yóbbu. mais boobu bi ma naan sama papa damaa bëgg a jàng ji métier comme sama frère yi. Mhm. Euh, mu ne ma ah loolu de boo toppee ci yoon boobu mën ngaa topp ci yoon bi nga xamante ni maanaam digal nañ ñu ko. Mhm. loolu moom moo indi la moo héritage couture ma ne ko nag lu nit donn da koy fésal. da koy fésal waaw tax deret du wor. waaw deret du war lépp lu nekk ci moom rek mooy feeñ ci moom moo loolu moom moo indi héritage couture. voilà donc héritage couture du jamono di dox di dox di dox di dox euh, ba héritage couture di def tour du monde ñu dem nag ba nga dugg ci euh, digital bi c'est-à-dire euh, tey fu nit mën a ne mën na am accès ci héritage couture. waaw comme li may wax rek dañu nekk ci heure bi daaw. Mhm. dañ nekk ci moment bu critique muy pandémie bi. Mm. te foofu lu fa waaye liggéeyul rek yaakaar naa dootoo ko mën a jariñoo te ci moment boobu ci ngay mën a xoolee yow liggéey bi nga doon liggéey nan nga mën a jaar parce que foofu moment stratégique la ndax euh, solution rek moo mën a génn ci la ñu toog xool ne àdduna bi yëpp parce que ñun ñëpp macha allah yàlla dogal na teel na nañoo génn di xool te saa bu ñu gisee rek lépp lu ñu gis ci dëkk yu mag yi dañ naan ñun pourquoi pas ñu am ko suñu dëkk parce que suñu dëkk moo ñu ñor ndax Euh, mënoon nañ def ji leneen mais yàlla dogal na mhm. lépp lu ñu am fii lañ koy indi lu ñu jox tamit fii lañ koy bàyyi mhm. ci laa ne damay concerté wu ak euh, parce que nit ki bu tollee fenn bi ci liggéeyam dafay am manager mhm. di waxtaan ak moom di concerté wu ak moom mu koy xamal ni fii la jamono toll fii la ñu war a jëm te buñ ci tollee fii la ñu war a yegg kon loolu mu permettre ñu waxtaan ci suñu biir ñu ne pourquoi pas ñu def benn website site internet boo xam ne fépp fi nit nekk toog sa salle am li nga xamante ni maanaam danga koy bëgg ci héritage couture te doo sonn. ñu dem ba ci kanam ñu ne ok loolu suñ borom def ci ndam. ñu demaat ba ci biir ñu ne léegi nit ki le fait que muy toog di tàppe naan ay double V ak yooyu pour quoi pas mu am application bi ci téléphone am parce que ay Yves Saint Laurent. nit la. Sanel Dior ñooñu. ki leen mayoon jógu fi. marque yu mag yu ñun ñu ngi fi. te yàlla mi fi nekk mi ko doon maye jógu fi. Ah, ah. ñu ne kon pourquoi pas ñun tamit ñu imposer suñu bopp xam ne que war nañ leen mën a defal plateforme yoo xam ne bu ñu tëyee seen téléphone. képp ku ko téléchargé tey heure bi ak fii ñu toog. di nga am application bu dee Apple Store di nga am Héritage Couture bu dee Play Store di nga ko am képp ko yor téléphone bi mën a télécharger mhm. ñu ne kon loolu dafay gën a yomb ci ñoom biñ demaatee ba ci biir ñu ne kon jàll nañ ci phase yooyu yëpp te xam na ne ku ne xam ne dëkk bi dafa toll foo xamante ne yàlla dogal na nag mel na ne pandémie bi mu ngi commencé dañ te ñu ngi ñaan yàlla mu teel fi jóge waaw kon ñu defal leen benn privilège boo xam ne nañ naan nag léegi clients yi foog ñu gàtte leen nag defal leen showroom boo xam ne yi ñu doon gis ci dëkk yu mag yi mm-hmm. parce que man maa ngi inspiré wu lu ci bari parce que des fois foog ngay paresse mentale baaxul. foog ngay ubbi sa xel. di réfléchir waaw di réfléchir moo ñuy sonal di joxe lu original. parce que dina la permettre ba nga xamante ni yow chaque jour di nga def euh, lu rare. Mm-hmm. lu exceptionnel loo xamante ni dina am tuuti différence. Mm-hmm. parce que euh, tey mën nga tukki dem ci dëkk yi gis fa loo xamante ne nii ay nit a ko doon defar. Mm-hmm. mais sa xel da lay may nga ne pourquoi pas. lan moo tax mënul nekk waaw Sénégal léegi. loolu moo lay indi ok nga ne xaaral man su ma ñëwee li ma gisoon ci dëkk yu mag yi ay nit defar ko même bu ma nekkul ci yoon bi su ma ci toppee rek yàlla mën na dogal ma am bunt te mën naa ko def Sénégal loolu moom moo tax ñu def showroom boo xam ne ba pare ren dañ ci def benn affaire boo xam ne nii euh, des fois nga def dara suñ borom def ci euh, ndam def ci barke waa boo xam ne suñuy cliente macha allah dañu teel indi seen ñam ñu ñawal leen mais am benn temps boo xam ne dañ def benn stock boo xamante ne ni tey moment bi ma xëjoo fépp fu nit nekk bu bëggee yëre mu ngi koy am ba pare. ba nii nii nii nii nii nii nii. c'est-à-dire boo nekkee bitim réew dugg ci application boo ne ci site bi di nga am ñaw mais boo ñëwee ci showroom bu bees bi itam. da ngay am li nga bëgg ah parce que ay jeunes lañ te dañuy. parce que Korité ñëw na déjà ah. waaw parce que xam nga waaw mais liggéey danga koy préparer. parce que c'est pas que nga jekki-jekki bo loo doonul sëriñam loo doonul taalibeem doonam sëriñam te loo bëggul sori euh, pour man waroo ci sax jéem dara mm-hmm. léegi ci lañ def benn benn campagne boo xamante ni te fi ñu jëm mooy mm-hmm. euh, damay euh, lancer benn appel ci jeunes yi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal mm-hmm. te ñu ngi am loo xam ne ñu ngi koy préparer du yàgg dara ci kàttanu yàlla waxuma la ku bëgg dara héritage di nga ko am waaye ku bëgg dara ci àdduna bi rek di mën nga koo am ci héritage parce que dañu bëgg a lancer benn affaire boo xam ne ci kanam tuuti dañu bëgg a dimbale jeunes yi mel ne ñun te amuñu métier nekk ci biir réew mi ñu jàppale leen ci suñu xam-xam bi ñu yàlla may parce que loolu war nañu tamit ñàkk loolu mënta ñàkk loolu mënul ñàkk waaw loolu mënta am na ay at yoo xamante ni boo ko defee ci mbir mhm. def lu baax def lu baax def lu baax def lu baax def lu baax ba héritage couture toll fi mu toll mhm. baax na itam génn feneen te loolu itam yàgg nga ci ndax euh, créer nga ay emploi euh, defe naa lu jiitu sax nit ñi di kaas ak jàmbat ci wutum liggéey yow depuis nga am ci xam-xam ba ibbi sa place bu ndaw ci nga tàmbali di créer ay emploi ba ren 2021 waaw parce que xam-xam nit bu ko yàlla dimbali ak ku mu nekk nga yor ko li nga ñaan nit ñi mën koo jariñoo mhm. loolu amul luy sax ci àdduna amul kuy sax ci àdduna mais yàlla mën na la dimbale ba nga def ay produits yoo xamante ni mën nañ la sax dépassé. Mm-hmm. ndax man ñi ma jàngaloon ñaw xay na tooguñu fii. Mm-hmm. waaye buñ ko deful woon ci man tey. man mën naa bañ a waa doot maam bi te man war naa ko mën a def ci yeneen jeune mm-hmm. te gis naa ne depuis pandémie bi dëkk bi am na nu mu mel. te jeunes yi tey li may wax rek foo dem ci àdduna ba ci Chine jeunes yi ngay gis. ñu toog ay ñoo xamante ni bu ñu la waxee ñoo def lii. Mm-hmm. da nga naan mënul nekk te pourtant xel la ñu yor. te ñun ay sénégalais lañ kenn war ñoo gën a mën a yeewu ci loolu. moo tax mm-hmm. ñu ne nañu ñu ngi du yàgg dara nag incha allah ci fan yi ñu jëm. Mm-hmm. waaw bëgg nañ def loo xamante nii maanaam jeunes yëpp dinañ ci gis seen bopp. loolu tamit mënul ñàkk. héritage couture dafa ibbi euh, showroom bu bees. boutique baa ngi nekk fii euh, rond point EMG booy jël. Kids Place boo jógee boo jógee Castor noonu. Mhm. Euh, boo rombee Kids Place rek. Euh, ci rond point EMG bi fa la nekk mais nag showroom la boo xamante ni dafa original ba nga xam ni nit sax mën na fa dem juste pour toog waxtaan mais je vous le conseille pas parce que du grand place mhm. mais tellement dañu fa liggéey liggéey bu mucc ayib dama buggoon ñu def fa détour ngeen xool li héritage couture indiwaat encore ci nouveauté lépp rek pour innover bégal sénégalais yi mais surtout ay fidèles clients showroom baa ngi fi nga xamee ni mooy rond-point EMG mën ngeen fa dem bu ko defee ngeen découvrir modèle yi héritage couture jagleel sénégalais yi site internet héritage couture application héritage couture mais je vous redonne euh, numéro de téléphone bi donte gis ngeen ko euh, ci visite guidée bi ñu leen defal léegi euh, ca fi nga xamee ni mooy showroom bu bees bu héritage couture bu leen neexee ngeen dem fa bu leen neexee ngeen wootee itam ci 77 417 86 86 wala 77 416 84 84 léegi nag euh, modèle yi li ci neex mooy góor dañu koy ñawal jigéen dañu koy ñawal xale dañu koy ñawal mag dañu koy ñawal am nag euh, collection bu bees boo xamante ni euh, il faut que ñëpp profité ci pour am ko ba noppi tamit ay modèles yu accessible la maanaam na sa poche mën ci toll boo demee héritage couture ñu am lu ñu la dimbalee en fait parce que dañuy def sax ay modèle bon vendredi. Mhm. parce que nit ñi léegi dañu toll foo xam ne culture Sénégal. modèle bon vendredi. waa ay tenue de trente mille. vingt cinq mille cinquante mille quarante mille ba vingt mille parce que nit ñi tamit. Mhm. Euh, tout finir ah lépp. Mhm. maanaam prêt à porter yes léegi nag loolu dina permettre ba nit ki nga xamante ni tellu na fu sori bëgg sa yére te mënu am njëgam mu mun ko am. parce que dañuy ubbi lépp rek ëppam. Euh, te yàlla dimbale nañu tamit biñ ci nekkee ba léegi ñu ngi ciy concerté wu parce que euh, fii may wax ak yow ñu ngi xalaat ak équipe bi fii ba dimanche ñu jéem a booster leen nga xam ne ñaw yëpp day pare. ñuy lancé nag beneen appel boo xam ne ñi nga xamante ni bu ñu korité ba pare net ñu def comme ni ñu defoon ci euh, korité bi ci tabaski bi ñu teel a commandé parce que dañu am benn espace boo xam ni dañ ko bëgg a defal ñi nga xamante ni tey dañ nekk ci bitim réew ak yooyu nga xam dañuy teel a jot ñoom tamit seen ñaw mm-hmm. ba ñu ci bari ñi nga xam ne ñu ngi à l'extérieur ñu waroon jot seen yére fexe nañ ba tey livré nañ ñu bari parce que dañ leen di livré en de 4 jours ñu mën a jot seen euh, ay ay yére seen ñaw daal loolu daal euh, bëgg nañ ñu teel a ñëw ci tabaski bi ñu teel leen incha allah. lan mooy sa lan mooy que tey ak foo mënti nekk fii ba Amérique ba Europe euh, ñaw bi da koy jot à temps quoi da di livrer partout dans le monde. waaw parce que loolu nag comme li ma la wax rek. jàng dafa am solo. Euh, Pape dama dem euh, Amérique sama soxna ñuy toog di waxtaan mais à tout moment da ngay gis mailbox yi di ñëw maanaam maanaam ñu lay livré naa ko waaye yow fan nga demoon ba jënd yére yi mu naa la non non man dama kaa jënd dama ooda mu yegg si dama ooda mu yegg si ma ok kon ñun senegal foog ñuy ooda mu yegg si mm-hmm. loolu laa jëlee ñuy ñëw rek waaw ñuy commandé muy ñëw mais léegi ñi doon ñuy commandé comme man philosophie boobu laa am uh-huh. bu baaxee rek dama naan damay jël mm-hmm. noonu laay doxee. bi ma ñëwee ma dem ànd ak sama manager. ñu dem ci pandémie bi daaw bi ñaw amul. nit mën mënta yóbbu ñaw yàlla suturaal na mu ci yóbbu ñaw parce que partenariat bi ak ñi ma koy defal. war na mat presque trois ans kon. mbir da nga ciy teel a jóg sécurité beeg qualité bi c'est-à-dire sa ñaw day ñëw temps. Euh, doo ci am loola ba dafay rafet. Mhm. ndax euh, loxo créateur ak tailleur yu mhm. héritage couture. Mhm. waaye itam fa muy jaar. pour àgg fa mu jëm ci livraison bi. da ngay sa xol dafay sedd quoi. ba pare sax li ci gën neex dañ leen defal service après vente. Ah. parce que dañuy dafa am service marketing. am service commercial yooyu nag boo ko daan déglu ci ñaw dañ naan noo attends. ndax sama ñoom papa xamuñu woon loolu. su ma sañoon bu ñu fi fekkee tey ñu yëngi amateur. non du yëfu amateur c'est une entreprise. war nañ fa dégg boo tukkee héritage. waaw comme un PDG Italie ci wàllu. waaw haute couture. waaw war nañ fa dégg Sénégal. te yéen yéen a ci mën a yéen yéen a ci mën dara. mais parce que ñun la yàlla dogal ñun ñooy jeunes yi nga xamante ne xay na. meññ nañ ci loolu ba ñuy am ci yaakaar waaw am nañ ci expérience parce que vingt 21 naa nga nekk ci benn liggéey euh, mm-hmm. xaw na mm-hmm. xaw na durée et puis ngeen di ñëw c'est de la haute couture parce que lépp loxoo koy def ngeen jël temps pour defaral benn tenue boo xamante ni nit ki boo koy sol euh. Euh, bu dee ci dëkk yu mag yi yére boobu rek dafay cher fii rek lay la dul cher mais ça a tellement de valeur que ñëpp war nañu jàpp ci liggéeyu tailleur yi fi nekk su ma lay xool ci koor gi uh-huh. des fois boo rek ma ne oh parce que ni ma koy yëgee ci sama xol xam naa ne Sénégal yëpp moom lañ koy yëgee parce que da ngay gis made in Sénégal bi gis nga lii dafa rafet mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi après yow da ngay xool ne Pape Cheikh non allah. ak équipe bi quartier général Sénégal lañ ko def dañuy sañse da ngay xool ba si ak yow fi mu toog yow da ngay xam ne nga naan lii warul woon sax jeex koor gi dafa war a continuer ba fii ak ay xama meen ak ñi sant Fall ak mu métti moo tax waaw <laughs> <laughs> ndax euh, lu may wax rek souvent seul le travail paye. Mm-hmm. seul le travail paye. seul le mm-hmm. man gis naa la. Mm-hmm. habillé nga ma sama nuit du bazin. sama troisième édition. dëgg lu muy jëflante si liggéeyam. Castor ak en face marché Castor. Ah. yàgg naa indi ay clientèle. dëgg la lu ñuy accueillir. ak aussi sa compréhension maa ngi la si félicité ndax showroom héritage culture seul le travail paye félicitations longue vie à toi merci. de bonheur merci. et de continuation continuation kontaan nañu ban message ngay jox euh, euh, sénégalais yi moo xam sénégalais yu Sénégal moo xam sénégalais yu bitim réew ba ci euh, ñi xeetoowul ak ñun nekk bitim réew di consommer héritage couture. Euh, waaw foofu. Euh, parce que man léegi héritage couture rek laay wax. affaire bi nekkatul Modou Gueye kese. lu yaatu la yëfi Sénégal la. tey fu fu tubaab toogee ni Dior Christian. Mm-hmm. Mm-hmm. man damay toog ni héritage couture parce que mm-hmm. marque la boo xamante ni. sa euh, commence à devenir mondial yow rek moomatuloo ko. yëfi dafa dem ba nekk patrimoine pour Sénégal. donc ban ban message nga li ngay joxe. loolu nag lu ci bari nag su ma waxee dëggantaan. Euh, mode korité mode tabaski yi participé nañ ci lu bari yàlla rek moo ma tiim. moo tax mënuloo ko wutee en fait te doo ko wutee. Euh, parce que en 2012 bi ñu ko defee fii nii 2013 ci lañ ma yërul yóbbu ma city euh, Memphis. Memphis Amérique. defal ma honorary city of Memphis. defal ma privilège ci dëkk ba ne ma lu fi doomu dëkk bi di am mën nga ko fi am mais dama ne leen Sénégal man maa ngi Sénégal. parce que loolu tamit ñu ma gisul woon fii. Mhm. yàlla mën na bañ a dogal sax ma bañ a yegg foofu. daan naa fa dem mais fii lañ ma tegee bët. boole ma ci sélection yi jël ma yóbbu ma foofu kon mode korité ak mode tabaski. Mhm. damay conseiller képp koo xamante ni yaa ngi nekk ci mode ñàkk fee bañ a jaar wóorul. Mhm. parce que day dundal culture Sénégal te njiglaay man boog xam naa ci dara. Euh, may remercier suñu frère euh, Ndiaga moom it ku baax la euh, ku ci jàpp moom tamit mhm. te amuñu fayam quoi mhm. Mhm. kon ak équipe yëpp ñoom Mia Didi ñoom ñëpp moom sama jarbaat la quoi yow nag comme li may wax rek yaa ak Amina Poté <laughs> <laughs> ñoo bokk groupe <laughs> may remercier ñëpp nag di comme Pape ma bañ a téye temps bi parce xam naa ne dina waa héritage couture daal aw ma seen fay ndax man donc mën naa ñaw mën naa dagg mais mënumaa ñawal ñëpp mm-hmm. te mënumaa daggal ñëpp mais yàlla boole na ma ak ñoom ba équipe bi am nañ compréhension boo xam ne mm-hmm. euh, balaa may wax sax ñoom ñu nangu mm-hmm. kon lool sant yàlla la may remercier ñëpp di baaluwaat ak ñëpp di kontaan ci ñëpp merci jërëjëf man tamit kontaan naa parce que disponible na euh, baax na euh, te amul benn li xale yi naan yógoo succès moom loolu da koo dal dafa am taalibe Euh, ba noppi itam nekk jàmbaar am jom nangoo liggéey ay at boobu ba tey mu ne ci rek ba noppi itam lu mu am bokk na ko ak nit yi bëri na ay nit yoo xamante ni au delà de euh, marque bii di euh, héritage couture moom moo duggee daf leen di dimbali ji leen taxawu. voilà donc di koo xamante ni tey ñun ñëpp lay def suñu fierte sagug jeunesse su Sénégal nga. boo demee ba toll ci war a créer ay emploi mënuñu lu dul rafetlu ko et on espère que itam ñi ci war a jàpp dinañ ci jàpp bu leen fàtte ubbi nañu showroom bu bees héritage couture mu ngi nekk fii rond point EMG bu ngeen fa demee itam muy góor wala muy jigéen di ngeen am ay modèles yu rafet yoo xamante ni même bu korité passé ah fii ba tabaski teel a euh, réservé teel a commandé ñu teel la livré euh, mën nga dem itam ci application héritage couture passé sa commande wala ci site internet bu héritage couture leen itam jox leen numéro téléphone yi euh, pour yéen ñi tàmm euh, woote euh, pour def commande bu dee da ngeen bëgg yére héritage couture 77 la 417 86 86 wala 77 416 84 84 jërëjëf Modou client yi nekk ci àdduna bi yëpp nag client yëpp ñi nekk Sénégal Guinée Mali fépp parce que mënuma lim ku lim juum ku sama doom bu ndaw bi maman Ndioba voilà kooku moom mooy sama xarit merci Modou Gueye